wax ne Macky Sall man dama ko bañ a tudd sax ba naan Jimbori ma dem jaxale sama jaamam Jimbori Sall mii laa di bëgg bëre bañ bëre mënu fee nekk rek nag lu ma neex laay def te du bëre xiifal nit ne du bëre ñi xañ xale yi liggéey ne du ma bëre taw bi tawul mu mu ne du ma bëri tas yaakaaru jaam yi ba pare du ma bëri manta nekk la ma waxoon nag wax dama ne ki mu war a bëree muy kalimay sa waat fii ci jokk ma ngan yi waat bi c'est l'homme qu'il la place qu'il faut dama ne Karim Wade doomu président la ba papaam def 12 ans kenn mosul a gis loxoom bii mu takk ci montre bu jar téeméeri million ak fukk ak ñett Karim Wade nekk na denc Karim Wade ci boîte de nuit wala muy taxawaalu Karim Wade nekk na fi ba papa wàcc kenn mosu ko def ci ñàkk kersa wala impolitesse te moom na ko def ndax moo xew ci jamono Karim Wade li papaam Abdoulaye Wade def ci réew mii nga xam ne lu waaye xam xamal ko sa doom xamal nga ko ñi nga àndal Karim mooy suñu candidat tey et c'est pas la première fois man ma di ko wax ne nous n'avons pas un plan B nous n'avons pas un plan C amuñu X amuñu Y benn candidat lañ am congrès ko fan rek moom la ñuy jàppale léegi maa ngeen di nuyu ci turam na ma ni ma dafa bëgg téeméeri jigéen téeméer nit ñoo gis juróom benn fukk ba doon ay jigéen pare ne ko ndax il compte sur les femmes et les jeunes donc man waxuma 60 pour cent dama ne 80 pour cent des des parrainés doivent être des doivent être des femmes parce que jigéen bu nekk jëkkëram nekk xaritam nekk dëkkandoom nekk ñoo nekk ci daay ñoo nekk ci xew yi ñoo nekk ci madina yi ñoo nekk ci marché yi te genn góor jéematul dara lépp wàccoo ko dañ ko jigéen ñi kon war nañoo fexe deuxième à parrainer le candidat Karim Wade au nom de toutes les femmes du Parti démocratique sénégalais. sama carte d'identité bi je serai la première à signer à mon nom et au nom de toutes les femmes dama ne Karim Wade du candidat peuple laa di Karim Wade est un candidat mondial. dama gis benn tubaab nga wax ak moom ne la vous croyez que c'est vous seul qui aimez Karim Wade ma ne à combler toutes les personnes aiment Karim Wade donc yàlla ko yàlla defal kenn jiw yàlla na wàcc. million to what?